na fekk jëf wees nit dina wax ba dugal boppam waaye ki wax ba dugal boppam ne fàng ne jant te journal yépp xëy ko amee ko tey mooy journaliste bii di Cheikh Yérim Seck ñu àndandoo yër xëtu njëkku journal yi La Tribune Le Quotidien Vox Populi L'Enquête L'Observateur ñoom ñépp ñoo xëy tey amee seen xëtu njëkku yéenekaay ak journaliste bii di Yérim Seck l'observateur ne ñu Yérim kay dugg na ne rubba rek moom kay moom xaw ma kuy waxati rek waaye moom du ca bokk ne coowal batu policier 4 milliards yim ne moom lañ ci dugal moo ko nar yóbbu garde à vue vox populi nañu moom kay nag tey jii rek la war a gano procureur waaye na ko leer na rek bu fa demee di xiin xiinee ka weddee ka laye ka leeral te indiwul firnde yu leer ci tuuma yi mu teg ci ndoddal président Macky Sall na ko leer na rek nungu siin lay fanaane ji le quotidien nañu moom kay sax nag moom ma nga fa rek na brigade des fédères bu fala fanaan démb bi nañu moom kay tey rek lañ ko war a defeere te Yérim bu moytuwul boppam sax nag dinañ ko yóbbu foo xam ne kenn du ko fa fekk ki ko fa nar fekk te dugg ne rubba mi ngi ci xët wu njëkku laas ubbi leen xët wu njëkku journal bi ak waykat bii di coon Thione Ballago Seck Le Quotidien nañu moom kay nag li ko nar a dal seddu ndax juróomi ati kaso mi ngi koy yoot waaye Thione sekk nee na li ma gën a métti rek ci yëf yi mooy coowal phobie yooyu tax na man jaratuma dara ci dëkk bi waaye a jël rek te man moo ma ëlëm ñi seenug dee ëlëm waa askanu Sénégal te buñ yëbuwul armée bi dina jeex ñoo ngi ci xët wu njëkku la témoigné ubbi leen journal bi Casamance ñaari soldat deewatina fa te li leen rey du leen rek lu dul mbell yi le quotidien nañu moom kay nag ci diiru fukki fan ak ñetti wata ñoo fa mbëkkante ba rey fa ñaari soldat ña ca des moom jële ci ay gaañu gaañu ki gaañoo gul te li ko nara dal seddul mi ngi ci xët wu njëkku Les ko ubbi leen xët njëkku journal bi di seen nus ndaw bu dëkk fële ca Pikine tali bu bees moom la ñuy tuumaal ne moo kompaloo ku xaritam sàcc ñeenti millions yi jëkkëram baax na ci yéen góor ñi di ngeen a nay rek maa ba ëllëg ak jàmm